ayo di jumtukaay bii tax ngeen mën di woote Sénégal nu mu leen neexee ci njëg yu xéewale moo leen di may seen émission Modou Modou ci Touba Argentine TV. Eh, salaamaaleykum wa rahmatulah mbokku taalibe yi mbokku jullit yi ñoo ngi fii ci Cordoba ba tey ci reportage yu Modou Modou yi ñu feggoo ak suñu benn jigéen buñ naan Soxna Jaara eh, di soxna soo xamante ni daa ñëw fii pour daan dooleem muy ku ràññeeku ci dëkk bi ci diggante Brésil ak Argentine di ko am pësteef. ñu xàmme ko ba bu baax ci liggéeyal Serigne Touba fii ci dëkk bi ñu fas yéene wel ci moom ay kàddu yoo xamante ni fas yéene nañ koo laaj ñu jox ko mu présenté boppam wax euh, fan la dëkk ci senegal salaamaaleykum soxna Diarra. waaleykum salaam. waaw ah, man nga ñu présenté sa bopp wax ñu fan nga dëkk ci Sénégal. man Dakar laa dëkk Sénégal Castor. dakaar la dëkk Castor. waaw soxna Diarra yow nan nga def ba ñëw ci dëkk bi nga xamante ni mooy Argentine ak euh, Brésil. ah dëkk bi de dama fay ñëw rek daan ci sama doole Brésil laa njëkkee def naa fa quatre ans di ñëw fii Argentine waaw bi may ñëw nag moom visa laa fi ñëwee. Mhm. waaw soxna Diarra euh, kon léegi nga xaw a yàgg ci dëkk bi kon yaakaar naa am nga fi expérience euh, ci dëkk bi. lan mooy li nga xamante ni mooy jafe-jafe yi nga xamante ni dund nga ko ci dëkk bi te boo sañoon euh, li nga xam ne mooy nguuru Sénégal dugal ci loxoom wala nekk ni nga xamante Sénégal yi nekk nekke nañ ko ci dëkk bi ci ay jafe-jafe eh, xanaa yow di nga ñu ci baaxe tuuti ndax euh, lu mu gàtt gàtt def nga fi ay fan. waaw jafe-jafe yi ñu am ci dëkk bi moom mooy fii ci Argentine euh, amuñu fi ambassade problème boobu am nañ ko fi ak problème pour. waroon nañu Sénégal euh, gouvernement bi comme Europe ni muy mel bu sa passeport jeexee wala sa passeport réer war nga ko fee mën a defar du jar euh, euh, gouvernement Sénégal ñuy xaar pour ñu yónnee nit ñu defar luñ ko loolu daal problème boobu lañ fi am. waaw kon loolu di message boo xam ne soxna Diarra jàllale na ko ci problème mu gouvernement. ci consul boo xam ne war nañ ko def fii ci Argentine loolu tamit bokk ci jafe-jafe yi euh, ñu jàll ci suñu beneen question bi nga xamante ni moom mooy ci topp mooy yan comportement yi nga xamante moom la ab euh, Modou Modou wala képp ko xam ne bàyyi nga réewam ñëw ci réew jàmbur nan la war a comporté woo ci réew jàmbur euh, comportement yooyu yan la. ah man de foog naa ne boo jógee sa réew sama xalaat bu gàtt waa nga xam ne danga faa bàyyi say waajur bàyyi fa say noon ak ñi la bëgg. boo ñëwee fii rawatina ñun ñii murit ñi war nañu am comportement boo xam ne ku ñu gis rek xanaa xam ne ci njabootu Sëñ Tuubaa gi lañ bokk war nañuy gën a yokk suñu jaamu yàlla di gën a di sellal di liggéeyalu sëriñ bi te xam ne sëriñ bi moom fépp la nekk waaw ba ku ñu gis rek ràññee ñu daal. waaw beneen question bi mooy eh, képp koo xamante nga génn sa réew rek di liggéey am nga objectif mais yow lan mooy sa objectif bi nga xamante war na ko rendre Sénégal ëllëg. man moom fii nii passe temps rek bëggaguma fee yàgg-yàgg yooyu li ma fi bëgg moom mooy def li ma fiy def dem sama réew investir fa mooy sama bëgg-bëgg daal. waaw kon question bi ci topp mooy soxna Diarra eh, naka la waa Sénégal war a mën a comporté woo ak euh, seen doom yi nekk fii ci wàllu comprendre bu baax ndax situation yi fii dafay xaw a métti waaye ñoom duñ ko comprendre lan ngay wax parents yi. ak euh, frères yi ak sœurs yi nga xam ne ñu ngi Sénégal jàpp nañ ñu ñun yor nañ lu dul jeex ba jàpp nañ ne sax xaalis bi dañ koy for ñooñu ban message nga leen di ñu xam na rek dëkk bi metti na lool ñu wàññi bëgg-bëgg yi te xam ne dëkk bi daal neexut bu ñu yaakaar ne dangaa génn rek foog na xaalis bi dañ koy foog nañu wàññi bëgg-bëgg yi yemale seeni bëgg-bëgg daal te xam ne. luñ xam ñun bu ñu amee rek ñoom nañ xam ne nañ kontaan ndaxte bu ñuy reyante fii ngir seen mbëgte lañ luñ ñoom lu leen bëgg loolu lañ bëgg kon nag ñoom ñoo ñu war a jàppale di wàññi seen bëgg-bëgg di yemale seen bëgg-bëgg. kon soxna Diarra dañuy yamali foofu suñu ay question di la sant di la gërëm te di la ñaanal tawfeex ak taysiir kon ñoo ngi fii ci Touba Gordoba di wéyal suñu ay reportage ba tey. allo allo allo. ayo moo leen doon may seen émission Modou Modou ci Touba Argentine TV. ayo jumtukaay jokkoo la bu ñu leen jagleel yéen moodu moodu yi ngir fu ngeen mën di toll di mën di déggante ak waa Sénégal ci anam yu yomb te xéewale jëfandikoo leen ayo application bi ngay télécharger ci sa téléphone jot ci suñu liggéeykat yi ñu installé leen ko ayo jàppandi na ci Argentine boo ci soxlaa wol Abdourahmane numéro téléphone am 112 747 22 21 wala nga woo Gora Seck ci 223 305 01 27 wala La Plata nga woo Ndiagaka wala Ousseynou Fall. 221 50 37 301 yéen ñi fare Cordoba te bëgg a jëfandikoo application bii di ayo wol son yu bu baax numéro téléphone am 351 801 23 95 yéen moodu moodu yi fare Brésil it fàttewuñu leen woo leen Omar Ndaw ci 119 869 482 96 ak application bii di ayo da ngay dégg jàmm di déggante ak say mbokk ci jàmm. Ayo. te dikk na